tout droit jor mbayang lum absayo fay biram benda wagam jogalora zilo ingim ka jogo nege no ngel cosane wa jor xar len zilo mbayang sax legi mom moy loolu mais zilo wa jor am ngeen kan dafa xew dafa xew kon tout droit Niodior gars lamb di tay suba lay jeex ci ci mardi bi wàllu ru 500000 la. ezilo ingim ka njogoy nege no ngel cosaane. day or ga. sama baat bi neexul. ey loolu loolu dafa foor am sa jaab yi bokk. zero. kon tout droit ñoo joora ah. jon war ngeen di seet bële ca ginnaaw suba ci mardi bi juin lay jeex poids lourd yi 500000 la loolu dañ koy lijjanti Mouhamed Papa Sène di Véro suul eey aca départ pour ñoo door Zilo waaw mais waa Niodior loo leen di wax. waaw yaa ngi ñëw Niodior. yaa ngi ñëw. waaw ñu ngi ñëw toj fa comme dab. comme dab tojati fa. mais Zilo li nga def Kobangoy. waaw Kobangoy suñu yëf la. Kobangoy paa yaak meer ñaak góor ñaak jigéen jànq jaak dëggamaar ji jéeg ji ñëpp yow la ñuy waxtaan. waaw loolu noonu la mënoon a parce que borom bés bee tax. waaw yow boo xewlee noonu rek la mën a demee. waaw kenn du yow ci réew mi. Mhm. waaw xama rek. suñu yëf la woon daal daanu doonu loon yëfu Lamyn TV suñu yëf la woon ñun TV TV fa nekk ñu yëngal yaa ma gën a xam rek muy gaaw ci digg bi Poudre wàllum ala sirop fan si kebe mbege aade tout droit awama eh. ah, aha wana jambe mi ba ko be ba mooy jigéen വലിയ പിജന മോളി ബൈ ബൈ laal yoon laal njogo yi. waaw man laal samay. laal njogo yeeg si kanam. nga laal say ver. laal samay ver dem ñoojoor. waaw tout droit. laal njogo yi noonu si kanam. looy wax waa ñoojoor loo leen di waajal. waaw ñoojoor ah dañ maa wax foofu rek. waaw. comme gars yi dañuy xeex ñun dañuy woy. waaw. ñoom ñu ngi xeex ñoom. ñoom ñu ngi xeex ñoom. waaw yow ñun ñu ngi féexal xolum yàlla ñu ngi si làmb ji xamuñ waaw. jàmm jàmm ko gën. waaw ah, wala indil musiba sax nga romb ko dëkk bi métti na fan dëkk bi métti waaye dara lépp si calme lay mujjee ndax c'est nous dans nous fii Sénégal la ñun ñoo ko moom ñun ñëpp ko bokk. waaw kenn moomu ko nag ñun ñëpp ko bokk kon nag nañ ko rafetal. nañ ko rafetal. mu rafet ñu def ko ñu ndox ñu si glace mu sedd. bàyyi xeex yi waaye bàyyi xeex yi loolu amul sens. waaw Macky fii la dëkk Sonko dëkk. waaw kon c'est nous dans Sonko même bu jëloon réew mi sax du ñibbi Guinée. fii lay toog. waaw Macky bu wàccee du ñibbi Kirikoro uh, fii lay toog. waaw kon nag na rafet. na rafet na rafet. <laughs> na rafet na rafet na ah. wax. situation dëkk bi lamb yaa ngi annulé di annulé ñu coupé internet bi bu ñu buñ coupé internet yi ñun TV TV dañu dem au chômage. ah nga nekk nitu làmb gars yi di xeex andil mbokk yi Sonko looy wax si loolu. métti na waaw métti na daal ah, li naan ay du yem si bopp borom. waaw noonu ni ko Loum waxee rek. kenn du jël réew mi yóbbu ko fenn kenn du ko tuxal de. waaw Sénégal rek la mën a doon de a fexe ba du doon Sénégal. kon nag lu dul ko gën te jàmm si la lépp xaj yàlla nañu yàlla boole defal jàmm. ñu bàyyi lépp ñu toog ndax ñun TV TV fan yii sonn nañ de. waaw boo da ngay dugal image sax. Mhm. gars yi commentaire la tamit wax loo xam ne mooy loolu. dañ lay dagal ay saaga ay saaga lañ ñuy jaar taluñ lamb taluñ a te xamul ni ñun. saaga saaga baaxul ku nekk ndey la jur. te ku nekk baay la jur. waaw waaw il faut ndeyu jàmbur ku ne boo saagaa ndeyu jàmbur sa xel daa war a dem si sa yaay bi la jur ba sa papa waaw kon nag saaga baaxul te ñëpp mënuñ dem manifester ji ñi dañu nekk ci seen activité ñun lii lañ xam manifester nag duñ leen topp nag léegi ñu bëgg di manifester ñun ñu manifester làmb la ñuy manifester woo de waaw way ko rek mu neex gars yi tegu ko gars yi filmé ko mu jeex waaw waaw aca kon neex na kon neex na ci làmb la ñuy manifester affaire yaa ngi yëngu fag baa ngi dóor gaal gi entretien bi dañ koy arrêté interview bi dañ koy arrêté mag yaa ngi dóor wóorul dañuy toog fii Sangomar la fii Sangomar la fii Sangomar la fii Sangomar la fii Sangomar la maanaam Corona also dürfen.

ɓe mo jaga den wona aja tout droit loolu beneen courrier la mais ñun moom kanot lañ laal ba li ba Pocho, Pachincho, Zino, Mayo. Garimayo. Mayo, Mr. Gari. We are the same Paul, pont de ralliement. Là, si on doit actuellement avoir une petite nao, là. Après, il est là, il est là. Nous, on est là.

yaa ngi si liggéey bi ñu di wut paañ ñu di wut yoxos ñu di wut tuufa amee buri de. jëlal leen ma yaay booy bii rek def ci biir ndox mi lépp liggéey di wut paañ yooyu noonu yëpp ndeysaan yéen tëggukati suufu kanja yeeg yeneen affaire yooyu noonu di am ay yoxos ak paañ gis de. xam leen la méttee moo tax paañ bu seeree wala yoxos dafa seer seer naan <laughs> star dama tuuti. jar na mbuus junne. waaw <laughs> kon ñu ngi noonu yëg si nañ ko Joola gi tijji na meer yaa liggéey nag paañ yéeg yooyu noonu moom gis ngeen wala nële yenu ay paan fii liggéey rek lañ xam a naa jaab ga ab sa na jaaba koy <laughs>

Ay, una milla, ¿eh? Kumbaya gani aname? Eh, lepo ko tanya wala kumbaya ka dormola. Dormola muslo hen. Mam Ousa wi noonu le président des présidents. Waaw lu ko jara ko Ko Waaw. Yàgg nañ di bëggante te defuñu loolu. am na ku lay daaneel nag. Waaw. ma buus. le président borom ah, la moo ñu gàttal waaw ñu noonu. nee naa leen ñoo doon ñëpp dëkk Cheikh Mouhamed moom tamit gën gënu koo sonn. gannaaw sax boo fa demulee nga xam ne ay mool fa la ñuy sol. waaw. ah doom yi dara doom yi dara. daal yoon nañu ko am na ku lay daaneel. mu siis day am papa. daa siisu rek daa siisu rek. ma ne doom bu amul baay amul fen waaw doom bu amul baay amul fen ma ne doom bu amul baay amul fen doom bu gis day am baay sa nu nuux na ndax am na yaa ngi jàmm nekkatu jàmmoo sax tamaane nekkatu ngay jàmm yow noko nekkatu ngay jàmm yow barke rasul laay da koy raxas rek bàyyi arrière rek ba dara dugg si kàmb ah. Zero. Sama sa aku dam na. Ha, dam kipa port vale.